Sud FM, Bonsoir et bienvenue à vous dans ce Zéro Heure. Nous démarrons l'information avec une dizaine de sages-femmes infectées depuis le début de l'épidémie. Pour les protéger et sécuriser le parcours de soins des femmes enceintes, il faut plus de ressources matérielles et financières. Au-delà de la de la prime Covid pour les sages-femmes, il faut également faire bénéficier les stagiaires des ressources qui vont permettre d'acheter elles-mêmes des de protection. Bigé Bambodj, la présidente de l'Association nationale des sages de santé sont infectés par le coronavirus et parmi ces personnes, nous avons une de sages-femmes. Ce qui nous a inquiète, mais également ce qui nous renforce dans notre décision, mais également dans notre attitude de tout le temps, faire de la sensibilisation. Sensibilisation pour la population, parce que si on voit les chiffres, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas communautaires et de cas asymptomatiques. Cela augmente les risques que courent les sages-femmes dans l'exercice de leur profession et ce qui explique également qu'il y ait tous les jours pratiquement des sages soit de, des collègues qui sont contaminés. c'est pour cela que nous, nous continuons notre plaidoyer pour que vraiment plus de ressources soient affectées dans la protection du personnel de santé, spécifiquement les sages-femmes, que des masques, que des gels hydroalcooliques, de l'eau de javel, les gants, tout ce dont les gens ont besoin pour travailler puisse être disponibilisé parce que on ne peut pas parler de continuité de service si le prestataire ou le personnel n'est pas voudrions déjà euh, faire une demande auprès du président de la République pour qu'il y ait une augmentation de la motivation qu'on appelle la prime de risque Covid, parce que le fait d'augmenter cette prime individuelle permettra à chaque prestataire, chaque sage-femme, de pouvoir elle-même contribuer dans sa protection en ayant les moyens de pouvoir s'acheter des masques, surtout les masques FFP2, les masques chirurgicaux et d'autres matériels dont ils ont besoin. Parce sont pas suffisants. Parmi ces personnels infectés, il y a beaucoup qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État ni des fonctionnaires de collectivités ou autres. C'est des personnels communautaires, des sages Et ces personnes ne bénéficient malheureusement pas de la prime de risque Covid. Amour, la cherté des factures d'électricité est décriée par la population, une situation difficile pour elle. qui dénonce et appelle l'État à revoir la situation avec cette pandémie de la COVID-19 où les activités économiques sont au ralenti. Cherté des factures d'électricité. Les populations dans la Petite Côte à Mbour dénoncent le coût exorbitant du courant électrique, des factures qui pour ce mois-ci sont passées du simple au double, une situation rendue beaucoup plus difficile par la pandémie du coronavirus qui depuis plus de trois mois a déteint négativement sur les activités économiques du Sénégalais lambda, micro-trottoir. Les factures sont à la hausse, sans pause quoi. Nous les clients franchement et sans preuve quoi ça fait le double quoi tout le monde va vers la carte sax pour faire les yaxanal pour économiser toujours aussi ça devient toujours cher quoi vraiment ceci reste toujours à prouver quoi voilà. l'État aussi doit beaucoup faire parce que aussi la euh, bon les citoyens sénégalais sont conscients de tout ce qui se passe avec le corona aussi c'est difficile ils doivent beaucoup faire quoi parce que les factures sont chères quand même mhm. franchement ah. trop le gouvernement fait un peu le travail, pas, il n'y a pas de l'argent. de 4 mois, personne ne travaille pas. non, le président, je, dis, je dis une chose, le président, il faut le président être la population, ça Mais il faut que les Sénégalais comprennent les personnes, de, les peuples les courants est cher, les crises, il fait trop difficile. C'est trop difficile dans mon grand frère Une demande au président Macky et à son gouvernement à revoir cette situation inattendue qui ne leur a causé des effets du coronavirus qui a fini d'inquiéter les Sénégalais. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow potentiel risque d'accrochage entre voleurs de bétail et population du Balantacounda Brassou en zone de frontière sud avec la Guinée-Bissau. Des individus originaires de ce pays voisin sont régulièrement accusés d'enlèvement d'animaux avant de les restituer après d'intenses négociations. Excédés par ces vols massifs, les habitants de la zone n'hésitent plus à franchir la frontière pour aller reprendre de force leurs bœufs. Samedi dernier, 44 têtes de la frontière, correspondance Moussa Dramé. Le département de Goudomp est à nouveau plongé dans la spirale des vols massifs de bétail sur toute la bande frontalière qui la sépare de la Guinée-Bissau. La dernière razzia remonte à la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Nyanga, dans l'extrême sud-est de Sédhiou. Le nommé Telibari est dépossédé de têtes de bœufs par des hommes en armes, une information confirmée par le maire de Nyanga, Yorombalo, qui déclare que les recherches se poursuivent en zone de frontière. établis dans ce secteur, les voleurs auraient pris la direction de la province d'Oyo en territoire guinéen de Bissau, non loin de Nyanga. Ces sur le bétail ont connu une hausse inquiétante ces trois dernières semaines dans cette zone de frontière. Khalifa Dramé, le président de la commission transfrontalière de médiation basée à Samine, déclare qu'ils ont réussi à plusieurs reprises à organiser des séances de restitution des animaux volés convoyés en Guinée. de l'usage des fusils automatiques que portent à la fois les voleurs et les propriétaires de bœufs en représailles. Au village de Kounayan, dans la commune de Djibanar, les populations qui ont eu du mal à reprendre leurs bœufs parqués en Guinée sont rentrées en s'emparant à leur de leur troupeau, a également fait savoir Khalifa Dramé. Ce n'est certes pas du nouveau, mais la pratique fait surtout craindre des accrochages entre les deux parties, car dans cette zone du Balantakunda-Brassou, l'élevage le principal revenu pour certains et à l'inverse, le vol une Moussa Dramé Sédhiou Sud Ba. jërë ngeen jëf ci teewlu mi xibaar yi dañu koy dooree ak fukki sage-femme wala sax euh, lu ko ëpp ñi nga xam te ne ñoo amee mbas mi di Covid 19 bi muy dugg see ci réew mi ba tey. ngir sàmm leen waaye sàmm itam soxna ñi ñëw di mucc si faw rek kii di ministère bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram daal di rek bàyyi xel ci matériel yi leen di aar waaye itam ndàmpaay bi ñu jegleel eh, ñi yore paj mi eh, ci nguur mi eh, nguur gi dafa war a sax yokk loxoom waaye ñii di autorité yi faaw ñu daal di bàyyi xel itam ci stagiaire yi liggéey ci bërëbu fajukaay yooyee ngir rek ñu mën a am jumtukaay yu leen di aar ci Covid 19 bi Bigué Bambodj moo yor lenge ci kuréel bi ëmb mbootaay sage femme d'État yi nekk fii ci Sénégal ñu teewli ko ci micro Ndeye Khady Diop. bu ñu xoolee euh, chiffres yu ñuy joxe ci conférence de presse bi day wane ni ñaari téeméeri personnel de santé ak fanweer ak juróom-benn am na nañu feebaru Covid bi te ci biir ñooñu liñ ci xam rek ci suñuy xayma bopp am na ci du toll ci fukk ak ñaar jëm fukk ak juróomi sage femme yoo xamee ni bokk nañ ci ñooñu nga xamee ni ñoom ñoo am feebar boobu liñ doon joytu waaye liñ doon ñaan également pour que autorité sanitaire yi président de la république ministère de la santé ñi jiite wérgu yaram bi ci biir këru docteur yi ñu jàppale bu baax personnel de santé bi surtout sage-femme yi ñu jox leen ay matériel yoo xamee ni dina leen aar dina tax ba nga xamee ni dinañ mën a liggéey képp ku soxla di wasin di ñëw di visite di ñëw di soxla beneen pajub sage nga fekk fa sage bu la faj boo xamee ko Malaysia beneen bi également mooy ñuy ñaan président de la république di ko wax ni naam ñu ngi doon joxe lu ñuy tudde benn ndàmpaayu Covid mais ndàmpaayu Covid boobu dañuy ñaan mu gën a yokku ndax bu ko yokkoon dina tax ba nga xamee ni day ji même bu fekkee ni këru docteur yi euh, njiit yi amuñu euh, matériel bu doy bu mën a aar sage yi ak yeneen liggéeykat yi ku nekk si ñun dina mën a jël ci xaalis boobu dem mën a jëndal boppam lii di masque lii di gel hydroalcoolique nga xamee ni dina mën a aaru waaye dina aar ñi muy faj bu ko defee képp ku soxla faju boo ñëwee ci maternité yi di nga leen fa fekk également tamit ñuy ñaan ni waa docteur yëpp quel que situation ba nga fa nekkee moo xam nguur gi moo lay embauché di la fay moo xam collectivité ba nga nekk ca maire yi maire yaa lay fay wala CDS yaa lay fay wala yow da ngay stagiaire noonu rek parce que da nga génn kenn embauché wul te nga bëgg liggéey bi tamit ñoo ñëpp ñu boole leen ci euh, vraiment prime boobu ñuy joxe neexal boobu nga xamee ne dina tax ndàmpaay la bi ngay mën a dem di ci jënd di ma la waxee matériel boobu parce que ñëpp ñoo war a aaru fële ca Mbuur daanaka facture courant yi cher lool la def askan wi fa nekk ne facture yooyu daanaka mat na ñaar li ñu doon fay ñi war rek kii di nguurub Sénégal mu dal see ut pexe ndax ñoom li ñu dëkkee doy na leen sëkk mbas mi tax na dara doyatul Babacar Sow. yokk gu jéggi dayoo bi nga xamee ni nemmeeku nañ ko ci facture électricité yi askan wi yeewoo ci Petite Côte ci diwaanu Mbuur di ngañ bu baax a baax cher gi nga xamee ni courant bi cher na ko ci réewum Sénégal di facture yoo xam ni weer wi ful na ñaari yoon la ñu daan fay di loo xam ni lii li ko gën a jafeel moo di feebaru mbas mi ñu nemmeeku ci réewum Sénégal lu toll ci ñetti weer a ngi nii mu indi ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom ci doomu réew yi Sénégal. facture courant yi nag moom ya bëri na trop te bu buy yokk du ñu xam sax cause bi tax muy yokk parce que mënoon nañu wax ci branchement yi la wala ci niveau fan la yokkee quoi nit ñi mën a xam sax mën ko waaj mais yokk pour yokk rek pour yokk xaalis bi rek tamit sans cause te xamuñu lu ko waral aussi xamuñu lu ko waral quoi corona bi nit ñi buñ toogee seen kër courant la ñuy utiliser mais aussi ba tey dafa des waa Senelec aussi ñoom gérer bi rek ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo yor di jox résultat yi waa état bi état concentré mën a débloquer mën a fay waaw facture yi moom doy na waar trop affaire yi metti na xam nga réew mi fi mu toll nii pile boo xoolee 4 mois ngi nii dara doxul liggéey damatul da ngay benn bennal sax xam nga léegi buñ ci naree yokk facture facture cher ñëw xam nga day xaw a doy waar bi ñu nekk yoruñ te nit ñi maanaam dañuy taaba taaba dañuy wut te dëkk métti na trop ñoom ñi xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw yàlla jox na leen dara xam nga dénk na leen ñoom ñoo war di bàyyi xel population bi quoi parce que affaire bi métti na trop nag dikk yoox goo xam ni ñu ngi ko jooyalee président de la république Macky Sall ak gouvernement am mu seetaat li ni mel di loo xam ne lii daf leen a bett lool te ay jafe-jafe dong la leen jural suñ sukkandikoo ci li ñuy yee bi su ko njiitu réew mi defee dina nekk loo xam ne lii dina mën a fexe ba wàññi jafe-jafe yi leen coronavirus andil Babacar Sow depuis Mbour pour Babacar Sow département bu Goudomp bu moyul rek jàppante dina am diggante ñi fa dëkk ak sàcckatu jur yi nekkee fële ca Balantacounda Brossou nekkee fële ca sud frontière euh, Guinée-Bissau daanaka ñi dëkkee ca département bu Goudomp lu du benn du ñaar ñi wax ne ñoom ñee ñooy sàcc seen jur euh, ut ngir ut super nag li ñu tàmm mooy daal di rek euh, jéggi daal di traversé dem ngir jëli seen njur yooyee dem rek sàcc nañ fa lu toll ci ñeent fukk ak euh, ñeent nag ba noppi daal di dellu ca frontière ba Moussa Dramé ci département Goudomp féetewoo ci bët Saalum réew mi it jege lool frontière ak Guinée Bissau foofee sàccum juróom ci lëmbee bu baax ba ci mujj mu ngi amee ci guddi gaaw jàpp dibéer ci commune Nianga féetewoo ci penku diwaanu Sédhiou it waa jile di wuyu ci turu teli bari nee ñu lu toll ci ñeent fukk ak ñeent nag moom lañ nangu ci ay loxom dal di ko yóbbu ci boori frontière ak Bissau ki xamal li ni mel di Yoro Mballo nekk maire commune Nianga ñu ngi wër ba tey jile it ngir mën a gis seen i nag yooyu lee ci kaddu yu bari yoo xam ne jot nañ kaa taataan ne ñu it ñoo xam ne ñoom ñoo def lu ni mel daanaka dañoo jublu ci boor a tund Oyo féetew ci réew Guinée Bissau fu serewul dara ak it ñaanga nga xam ne si daf ci lëmbe lool dafa alotiku askan wi ci dëkk am ci njàqare bu yaatu boo xam ne moom la ñuy dund bés bu yàlla sax ci boori frontière boobu lee Khalifa Dramé nekk njiitum commission transfrontalière de médiation koo xam ne dafay taxaw temm ngir rotal ci saafara rawat na waxtaan buy war a am seen i diggante saa su ne amul waxtaan boo xam ne dañ ci lal ngir it ñu dal leen jëbalaat seen i jur yi waaye it Khalifa Dramé di ci yokk ne it na ci njaaxare lool ndax bi dal di tabbi seen i diggante ndax it nee ñu it mu xam sàcc jur yi ak it ñoo xam ne ñoo di borom jur yi ku nekk dañuy yor seen i fetal automatique ba tax na it ñuy njort na it saa su nekk mënees na kalaate seen i diggante Khalifa Dramé di ci yokk ne it ay fan yi donc ci dëkk bi lay di Kounda féetewoo ci ci Balantacounda ba tey yooyu lay dañoo dal di dox ba dem ba ci Guinée bi Sow war a jëlaat seeni nag ñu gis daal di buub ñoom tamit nag yi féetewu ci boor a Guinée Bissau ñu daal di leen indi ba tax na tey jii la it ñu njort lool fitna kalaate seeni diggante ndax it bare na ñoo xam ne it ci Balantacounda seeni am-am mu ngi ci wàllu sàmm te it sàcc mi ci lool dafay yaatal lool ndóol mi ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM Ba mbokk yi xibaar yi buur na jërë ngeen jëf ci seen àndu beeg seen première radio privée du Sénégal Papa Abdoulaye Dieye moo fari woon ci machine bi ñu fanaan jàmm.